dal leen ak jàmm mbokkent internet du Net Bi TV Sénégal gannaaw ba ñu coupé signal Walfu mu war a diire rek 30 jours te ñu jàpp na rek état bi daf leen bëgg a rey définitivement loolu nag tax askan bi daal di jóg rek ne loolu du fi am ba tax nag ñu daal di lancer ab cagnotte ngir rek daal di koy dimbalee Walfu mu mën a fay ay liggéeykatam boobu lépp cagnotte nag ñu ko doon jaarale rek ci fondation bu Walfadjri mu nekk ci plateforme bu Wave boobu lépp fondation nag. état bu Sénégal daal dina koy supprimer ngir rek bañ askan bi daal di corriger ngir dimbalee ko walfu gannaaw bañ coupé seen ab signal lu ñu mel nag Guy Marius Sagna woon na ko ne rek nañ ko sécurité ba état bu Sénégal du si jot ndaxte rek bis bu si amee accès boobu lépp ko ñot du jàll. wax jooju nag moo daal di dellusi ba état bi daal di supprimer fondation walfu bu askan bi doon jaar ngir corriger daal di koy dimbalee walfu lu ñu mel nag Cheikh Niass moo ko daal di confirmer mu ne nag laata état bi di supprimer boobu lépp fondation. sénégalais yi jot nañu ko yónnee lu tolloog ci 40 millions laata état bi di supprimer fondation bi ndax Walfu dinañ jot yooyu les million millions dinañ wéy di leen toppandale xibaar bi waaye nag jàpp nañ ne lu ñu def teguñu ko fenn lu jut rek daal di bëgg tas Walfu daal koy rey définitivement. ñu jàll rek ba tey ci F24 ñoom nag niki tey lañ bëgg a def rek seen manifestation gannaaw bu préfet daal di interdire manifestation bu démb bi ak bu tey bi yépp ndaxte rek nee na F24 dafa yéex rek daal di déclarer mbir mi ba tax nag mu daal di koy interdit lu ñu mel nag tax F24 ne ala kulli tey moom seen manifestation dinañ ko def buñ ko autorisé buñ ko autorisé wul ngir rek daal di jéebaane njiitam réew mi Macky sàll ak doxalinam si askan bi waaye AIT ngir ñaawlu ñi nga xamante ne daal dina ñàkk seen bakkan ci manifestation yi weesu si verdict procès Adji Sarr Ousmane Sonko manifestation yu métti métti amoon fi ba tax nag ñu bëri daal di si ñàkk seen bakkan lu ñu mel nag f di ko ñaawlu ba tax nag ñu ne dañuy def manifestation ngir rek dal di koy naqarlu waaye te ngir soutenir Ousmane Sonko si ñu def ko ñam baare ko ba kenn mënu si am accès waa te kenn mënta dugg gis njiital Pastef Ousmane Sonko waaye ndax F24 seen manifestation boobu dinañ ko def wala duñ ko def dinañ wéy di leen toppandal xibaar yi fii si Net TV Sénégal